toog at rek wala at ak lu topp ba pouvoir bi toog ba président bi jël ay markam ko defee nga ñëw man mi maa ngi wut ay tool ak i nag donc mënuma jóge Sénégal waaye nag bu yàlla dogalee nga jóge ci réew mi surtout nag bu fekkee da nga jàpp ne sa kër ñoo ñëw euh, boo buggee toog réew mënul am ñaari kilifa donc il faut que kilifa bi yàlla indi mu bees ñu may ko espace mu mën a liggéey loolu moo waral loolu waaye du càgganu nit ñi dañuy génn rek dem feneen waaye nag newoon naa bëgg naa des ci Afrique ci Sénégal du tere nag dinaa dem fépp fu ma liggéey war mën a yóbbu wala ay soxla mais Sénégal moom na la leer ne muy Waalo muy Siin muy Fuuta muy fépp Casamance donc incha allah euh, dinañ continuer di fi ñëw voilà donc euh, RTS Mariama Dramé alors monsieur le président yaa ngi wax euh, waxum dialogue loolu yëpp pour apaiser climat bi la euh, mën nañu xam ñan ñoo ci bokk ak ngeen ñëw ci li ngeen ci fas yéene waxtaan pour ci élection yëpp am si jàmm yaa ngi wax tamit waxu ay amnistie mën nañ yaakaar ne ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ko mooy candidat Diomaye fay bi nekk prison ndax moom war na mën a bénéficier ci amnistie boobu walla keneen ku mel ni Ousmane Sonko. waaw loolu xam nga bu ñuy wax réew dina toll foo xam ne. li mu war a def mooy luy jubale nit ñi ak luy tax jàmm gën a yaatu loolu nag léeg-léeg amnistie dana am amnistie mooy dañuy effacer yi fi xewoon dañuy fàtte li fi xewoon fàtte sax xëy na du fàtte waaye daal dañuy mel ni loolu mosuloon am réew mi mooy nangu loolu ngir ubbi page bu bees loolu nag dama jàpp ne comme maa ngi dem li ma gënal mooy man ma bàyyi sama ginnaaw Sénégalu jàmm Sénégal boo xam day continuer liggéeyam ci wàllu développement donc bu jaree ñu def loi buy génnee ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu yoon mais jar na ko pour Sénégal nekk si jàmm jar na ko ndax bu ñu continuer jàmm bañ a am ñeneen dinañ faatu yàqu-yàqu yi dina gën a bëri ñeneen dañ yàq ñàkk seen alal ak loolu te su boobaa dootuñu tal développement dootuñu tal di dox si soxla ndaw ñi di leen indil li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen i yitte loolu nag nit ku mën a kuy seet rek intérêt réew mooy mën a waxee noonu waaye boo xool intérêt politique rek xëy na bañoon ko def ci wàllu politique moo ëpp moo moo ëpp intérêt moo ëpp intérêt si man si sama camp waaye réew mi la ñuy xool ak avenir réew mi donc looloo tax ma ne war nañ mën a dem ba yegg si foofu def amnistie au besoin bu ko laajee liberté provisoire pour ñenn ñi liberté conditionnelle pour ñeneen ñi mm-hmm. loolu tàmbali nañ ko pour créer climat d'apaisement ndax élection yi ñu jëm mën a nekk élection yi ñu def ci jàmm ak salaam. coalition Diomaye président dina bokk ci dialogue bi ngay wote. ah loolu ñoom ñooy tontu ci loolu ndax en tant que man daal dinaa recevoir candidat yëpp bu yàlla defee balaa booba ñoom bu amee liberté xëy na moom mooy décider ne dina ñëw wala du ñëw mais. waaw bu ay avocat am ñooy lijjanti loolu xam nga yoon tam dafa am ay procédure euh, président mënul wax nit génn rek ñu dem ubbi bunt bi génne ko dafa am yoon dafa am bu fekkee wàllu liberté provisoire la avocat yi bind euh, procureur ak juge d'instruction bi ñu xool après loolu mën na nekk dëggam bi c'est euh, li ci des nag moom amnistie rek te loolu loi la loi nag dafa wute ak grâce président bu nit nekkee kaso ba ñu jugé ko ba mu pare ba tribinal pare ci moom président mën na ko jéggal li ñu tuddee grâce loolu constitution moo ko may sañ-sañ boobu mooy tax toujours bu tabaski jotee wala korité wala 4 avril wala 31 décembre ngeen gis président libéré lu ëpp ay junniy nit pour rek président yi ñu libéré ñu ñu ñu féexal ko su ko defee ñooñu tam mën a profité pour changer seen bopp mën a reprendre beneen vie Euh, grâce nag dafa fu muy yem waaye amnistie moo ëpp doole amnistie nag assemblée nationale moo koy voté ndax loi la loi la boo xam ne danaan day dindi teef yi amoon wala jafe-jafe yi amoon crime yi amoon wala délit yu mag yi amoon su ko defee ña nga xam ne dañ leen ko tuumaal automatiquement bu loi bi jàllee dañuy dindi tuuma yooyu yëpp su ko defee ñu moomaat seen bopp dootul am benn conséquence si ñoom nii si seeni droit kon nag euh, defe naa lool leer na différence entre grace amnistie ak liberté provisoire comme nu mu ko waxee euh, ci français léegi euh, merci. président Sànq bi nga commencé wax. Hmm? wax nga yow sa mandat le 3 le 2 avril lay arrêté. yow laajoo leneen. da nga wax ak Sénégalais leer na. léegi est-ce que diggante loolu ba mandat bi am élection mun naa am diggante fekk 2 avril. maanaam am nañu proposé le 3 am nañu pour mars le 3 le 10 mars pour deuxième tour est-ce que ci waxtaan bi war a waxtaan ak ñoom euh, sa naataango yi war ñëw fii ak sa euh, opposition war a ñëw ak culture civile di ngeen jël date balaa ñu nga bañ a dépassé 2 avril parce que am ñuy laaj ci ne la bu ñu dépassé 2 avril est-ce que da ngay proposé président assemblée nationale jël nguur gi continuer. xam nga man awma lu may proposé parce que lépp. dafa nekk ci téere bi ñu tuddee constitution du Sénégal lépp lu ñu def fii lañ koy tibbee su fekkee ne fii li fi nekk ñëpp bokkuñu atte bi wala niñ ko déggee du ne du du benn kenn mooy juge boo xam ne moom moo mën a firi li ñu war a jàpp muy conseil constitutionnel kon bu fekkente ne élection bi amul fii ak élection ba ba dañu fal président kon la kuliyaaleen day am après le deux su ko defee nag le deux bi lan mooy xew loolu dialogue bi nee naa leen dina ci waxtaan pour xool ban intérim la def ak naka lañ koy defee loolu tam bu paree su fekkente ne nit ñi bokkuñ si àtte la kuliyaaleen du ñàkk le conseil constitutionnel joxe ci lecture am joxe ci avis boo xam ne avis boobu nag ñëpp dañ ci tënku donc loolu la man damay pare le 2 avril c'est clair soxlawuma yokk dara ci sama mandat wax naa ko mu leer waaye bu pare te ñu ngi ci processus électoral bu pareegul ala kuliyaalin faw ñu xool nan la ñuy saafara ban euh, saafara la indi si mbir moom ba nga xam ne élection yi dinañ dem ba mu pare président bi ñu fal jël fonction saafara boobu si dialogue bi nga yaakaar ne la war a mën amee. dialogue bi mën na si joxe xalaatam conseil conseil constitutionnel mën na si joxe xalaatam. absolument mais dialogue bi ban format la ban format lay am dialogue bi. dialogue bi mooy ñi nga xam ne d' abord ñoom ñooy les premiers acteurs mooy candidat yi feeñ ñi ñu jàppale ñii ñu valider leen ba pare muy ñu éliminer leen ñii. ñu tuddee seen bopp candidat yoo xam ne dañoo jël seeni seeni parenage ci anam yoo xam ne d'accord ñu si mooy di tubaab di wax candidat yu tuddee seen bopp spolié am dañ nangu seeni parrainage donc ñooñu ay acteurs lañu waaye nag acteurs yi yeneen yi gën a mag mooy la classe politique classe politique nag c'est les partis politiques c'est aussi les acteurs de la société civile ñoo ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ce sont les forces vives de la nation bu réew tolloo fii képp koo xam ne mën nga si wax wala dox si ngir réew mi nekk si jàmm continuer liggéeyam yaakaar naa ne jot na nga wax si walla nga def loo xam ne dina gën a defar euh, mbir mi ñu dem jàmm si élection te bu ñu jiitalee réew mi rek jàpp naa ne si ñaari fan ñaari fan sax ëpp na si benn fan war nañ mën a d'accord ci loolu donc loolu lay ñaan que ñëpp ñëw altine gën ngaa yàgg talaata ñu mën a fixer datu élection bi mën a décider aussi nan la ñuy def pour après 2 avril. président Birame sa yéene pour euh, dalal réew mi ñu bëri jàppoon ne sax euh, am na ñu ñu bàyyi ñu nemmeeku ko mais ñu bëri jàppoon ne aussi kon ñi gàddaay war nañ mën a ñibbisi am kenn si ñoom ku ñibbisi ñu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo euh, loolu yi tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est-ce que amul luy jiwarloo tuuti entre yow sa mbëbët ak jàpp yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku. waaw xam nga toujours si état dafa am ku nekk rôle boo jouer ak pouvoir yoo am pouvoir juge président mënu si dara mais bu ñu jugee ba pare wala bu ñu defee seen action état mën na xool à travers son parquet maanaam procureur yi procureur généraux xool bu dee ñun dañu ne. dañu bëgg daal vraiment ñu dalal lépp dox jàmm parce que loolu fa la réew mi toll war nañ mun gis kon ab solution ndax yaakaar naa ne ñu dawoon génn bu fekkee dafa amoon mandat bu ñu leen def wala am na lu leen toppoon la kuliaa leen bu ñu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy si yoon ba pare non après qu'est-ce qui va se passer danañ xool cas bi lan la exactement waaye jàpp naa ne même bu dee ay greffier euh, waruñ nekk au-dessus de la loi kon war nañu dimbale aussi réew mi ñu fexe xool kaa bi lan lan la ak nu mu tëddee bu fekkee ne moom it euh, mën na bénéficier aussi ñi nga li ñuy wax ay liberté provisoire wala si mesure yi ñuy wax parce que xaw ma kaam exactement lan la su boobaa danañ mën a arriver à des solutions maanaam si ay ay saafara. président euh, am na si ay témoignages aussi si condition de détention yi ñu naan dóor nañ ma ñu naan def na ma nangam loolu dem ndax jotul ñu def si ay gëstu. pour xool si yan anam la ñuy jàppee si yan anam la ñuy téewee ñi ak si yan anam la leen di dencee. ministre de la justice Garde Sceaux def na conférence de presse barki démb tontu na lu yaatu yaatu si mbir moomu duma ci ñëwaat waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturer doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko ndax doomu aadama doo waroon nangu ñu lay teg. Euh, loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire ni ñu leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturer ay citoyen accusation nag taxul ñu ne la ñu accuser am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seet si say avocat ngi ñëw te kenn mosul dégg na yow dañ la torturer kon léegi comment subitement on peut dañuy torturer nit ñi dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu lu dul ñu indi preuve bu koy wane su boobaa nag effectivement ay enquête war na mën a am pour saytu loolu. Euh, yaa xam wax na ko sànq président ci mu ne na dafa am ñu bëri dañ di jàpp ci euh, manifestation.